ci li ñu fi taxaw a ñëw ci ñaari journée yi li ñu fi taxaw a ñëw bala ñu ko wax dañuy sant ci fii daje ñëpp dajale ñëpp muy monsieur le maire Abdou Lahad Ka euh, sama mbokk yi nga xam ne ñoo ma jiitu ci kàddu gi te jël ko professeur Bassirou Lo nekk ci ak adjoint au maire yi ak conseil yi ak agent yi ñoom ñëpp wax nañ ko ku war a gërëm la parce que mi ngi góor góorlu pour état civil bi jëm kanam ci la ma tànnee moom ak directeur de cabinet ak seen consultant professeur Bassirou Lo ba ñu xalaat ne président tribunal bi moom war na ko man donc loolu la ci man ma leen ci remercier donc bi ñu ñëwee li ñu doon traité mooy organisation fonctionnement état civil ak contentieux ñëpp xam nañ ne Touba dafa soxla. ñu xool defaraat mbiru kayitu juddoom état civil donc ci loolu lañ nekkoon biñ ci nekkee nag ci njëlbeen gi parce ñaari journée la premier journée dama fàttali nan la ñuy yore état civil nan lay doxee yan mooy ay dëgër laayam registre yi ñu fi yor nan lañ koy dencee ku bëgg am kayit foo jaar ci yan délai nga koy defee principe yi mag yooyu yëpp fàttal nañ ko deuxième journée bi muy tey ñu joxe nag ay cas. cas de figure yoo xam sax euh, lu ci nekk rek nan lañ ko war a defee am nañ ci juróom benn cas ba juróom-ñaari cas mën nañ ci citer rek euh, lu mel ni déclaration normale ku am sa doom ngénte ko rek avant muy am at nga ñëw pour wutal ko këyit nooy def loolu wax nañ ko fi koo xam ne nii toog nga ñeent fukki fan ak juróom maanaam 45 jours ba xale bi juddoo déclaré wu ko waaye nag at mi matagul nga ñëw nan la def pour nga déclaré ko xale boo xam ne nii ah dafa juddu te ndeyam ak baayam jotuñu woon a sëy bi muy juddu wala ci gàttal xëy na xale boobu sax xamuñu baayam nan lañ koy déclaré pour mu am këyit loolu it traité nañ ko fi am na groupe bu ko yoroon xool na it mbir adoption wax nañ ko léegi Sénégal aada la nga jël doom maye waaye nag ci wàllu administration dafa am nu mu tudd am fooy jaar pour am ko. wax na ñi ku jaar ci tribunal ba am këyit woowu nan la ñuy defee ba xale bi am këyitu juddu pour adoption nga mel ne ku ko jur a ah xool nañ it lu ñuy wax rectification këyit woo xam ne nii biñ koy bind agent bi ah am na njuumte gu ndaw lu mu ci def donte jubluwu ko ci ndax nit matut ah nan lañ koy jubbante jàngale nañ ko fi waaye liñ ci mujjee jàngale te mu doon lu dëkk bi soxla woon muy registre bu yàqu wala këyit woo xam dañ ko amoon fii mu nekk ci registre bi ba jaar bi yow bis nga koy wutaat ñu ne la daa xotteeku wala nekkatu fa fooy jaar ba am ko wax naa ko ci tënk am na ci fànn goo xam man président tribunal bi ma am compétence su defar ko am na fànn goo xam procureur de la république bi nekk Jurbel moo ko sañ a defar am na ci cas yoo xam ne nii ah commission administrative bi nga xam ne gouverneur de la région de Diourbel tàmbali na ci ak procureur ak président tribunal TG bi euh, ñoom ñu ngi ci commencé waxtaan pour teg commission yi ak seen i membres def ci yitte lool ndax ñoom ñëpp la ñor commission bi am na ci fànn goo xam ne moom moo ko jagoo donc ci gàttal ci tënk loolu lañ fi jot a wax bala ma terminer nag di sant ñu doon participer agent yi gis nañ seen pas-pas seen yéene seen engagement professeur wax na ko léegi loolu daal na sama xel ndax man la yoon ne maay contrôler maag procureur état civil su ma ñëwee ci samay agent yi nga xam ne nii ñoom laa nar a contrôler ah ñu am occasion laaj ma liñ bëgg li leen jaaxal ma am occasion tontu leen nii laa bëgge bëggeewu ma nii ah ñu commencé déggoo di yégoo ah jafe-jafe du am suñu diggante te ñun loolu lépp la ñu liggéey ci jàmm ku ci nekk la la war nga xam ko def ko jafe-jafe ba ñu am ci gàttal loolu moo nekkoon liñ fi jot a wax li ñu fi indi ak liñ fi tëgg da ngi sant bu baax di leen